Euh, li ma bëgg juste euh, wax mooy développement personnel processus la donc mënuma wax ne lii mooy matière bi comme ni ma la ko waxee. parce que ku nekk ak la nga ciy dugal. la nga ciy def tamit saa dépend ki ngay jëflanteel naka la demee. par exemple tey bu fekkee da ngay def ak koo xam ne mënul communiquer. dans le processus de développement. dans son plan de développement personnel et dans le plan d'accompagnement boobu c'est-à-dire l'automotivation il faut nga dugal ci par exemple yu mel ni ay PNL ay programmation neurolinguistique dugal ci ay analyse transactionnelle des trucs comme ça et donc loolu continue yooyu moom sa dépend parce que comme ni ma la ko rek euh, am na koo xam ne boo fekkee da nga ko ne amul problème par exemple exprimer ak nit ñi xam boo dugalee matière boobu nga koy sonal moo tax la nécessité d'une entre lui son projet lui et son rêve. Mm. lui et son environnement. avec deux objectifs comme nañoo ne comme mën nañu dem ba jël développement personnel yóbbu ko ci prison yi xool prisonniers yi aussi ñu jëm leen développé. dañ ko soxla parce que prisonniers yi au Sénégal xaw ma ndax ça se fait. Mm. mais normalement la la prison est faite dans l'armée on te dit que. la la punition est faite pour réprimer l'oubli du devoir dans l'armée c'est ce qu'on t'apprend man man la la la prison koy bindloo sax wala ñu koy yenn saa la koy réciteloo la la la prise la punition la dañaan la la punition est faite d'abord pour réprimer l'oubli dafa am loo waroon def defoo ko wala ni nga ko defee baaxul ñoom dañ lay yóbbu pour nga seetaat sa bopp donc yóbbu ñu la pour xañ la liberté kese mais dañ nga yóbbu foo xam ne di nga mun toog seetaat sa bopp. Hmm. est-ce que liggéeyu seetaat sa bopp ñu ngi ciy dimbali prisonnier bi. parce que bu fekkee prisonnier dafa génn comme li xewoon temps yële. Hmm. génn ñu teg ci benn weer wala ay fan. mu hmm. dem ci lu mu dëkkoon kon prison ban njëriñ la am. alors que la société n'a pas besoin de prison prison dafa cher. dafa sonn te kenn bëggul sa mbokk nekk prison. prison la fa nekkoon mooy dañ naan ku ñëw dugg prison dañ naan kon kii dafay mel ni oto bu paan donc bu dugg see waruñu ko seetaan rek mu génnaat. dañ koy jël diagnostic ko xool ko defar ko ba bu génnee mu tane wala mu tolloog ña mu nekkoon ba pare mu rëccu li mu doon def. Mm-hmm. da même dans la justice boo xool juge buy àtte dafa am lu en matière pénale par exemple dafa am benn aspect bu important boo xam ne juge daf ci bàyyi xel mooy est-ce que nit ki rëccu na lu ñaaw lu mu def. Mm-hmm. maanaam tey bu fekkee nit dañ ko jël di ko jugé ci lu ñaaw lu mu def bu ñëwee ci juge mu rëccu. day tax juge bi gën a seddal la mu ko waroon teg parce que dafa naan kii comprendre ne def na erreur te dafay defaruwaat. Mm-hmm. prison yi tey ñoo gën a soxla loolu. prisonniers lañ war a gën a jàppale yee leen waxtaan ak ñoom mës naa defal formation bu mel noonu waa prison des femmes bu mm. Liberté 6 il y a quand même un peu plus de dix ans avec une dame je crois qui était dans une ONG mm. euh, depuis lors je l'ai pas refait c'est vrai que No Stress Land bi ma bokk mm, avec Sanou on est en train de faire des actions sociales on devait faire des actions sociales dans la prison des femmes cette année on l'a pas fait le temps je yooyu je dis tout le temps c'est ma participation citoyenne ñoo defal ñu mel noonu formation laajuma ci fistine laajuma ci dara mm. ñoo joxe sama xam-xam joxe sama xalaat jeunes yi nga xam ne tam amuñu xaalis amuñu dara bëgg organiser wu euh, récemment par exemple y a des jeunes de Touba Toul mm. yu bëggoon benn formation en marketing électoral ma defal leen gratuitement laajuma leen ci dara parce que je me boo tolloo foo xam ne amagoo ñàkkagoo dañ la war a dimbali te nit ku ne boo demee ba yàlla dimbali la nga yéeg da nga war a wàccee échelle bi man loolu laa gëm mm. jeunes yi ñuy déglu mu doon ay quartier wala ay ville wala ay association yoo xam ne bëgg nañ ci lu mel noonu ah muy man wala muy Amadou Niang sama rakk boobu nga xam ne tam mu ngi góorgóorlu lu baax ci domaine boobu wala lancé na saako wala keneen mun naa leen woo ne leen booy kañ jàpp ci ñu dimbali leen parce que suñuy rakk lañu. te bu ñu tekkee. ça fera des jeunes qui demain vont faire la fierté de ce pays. Okay, donc loolu moom incha allah.